asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan seen site internet Thiès Info ak euh, Thiès 24 ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di gërëm sunu xarit yi nga xam ni ñoo ko moom muy El Hadj Mbaye ak euh, El Hadj Sey Latir ñu sant leen bu baax. jataayu tey bi nag li ko waral mooy rek yëgal leen benn xew-xew bu mag buy xewee fii ci Thiès muy guddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di guddi gu mag ñu tuddee ko nit ñu mag ñu tedd muy yonent bi sallallahu alayhi wa ak baayam abdullah aboubacar omar ousmane ali ak ñoom Bilal ak Jaafar ak Hamza ak Zeyd ibnu Haarisa ñooñu dañ ko tuddee muy guddi gu mag a mag a mag ciy invité ñëpp nag euh, bu dee ci jigéen ñi ñu ngi ko tuddee Seydatuna Amina yaay yonent bi ak soxna Mariam di yaay yonent Yàlla Isa nga xam ne mooy ndeyu catholique Euh, ak itam Khadija Aïcha Fatima Sumaya Halimatu Saadiya ñooñ lañ ko tuddee dolli ci euh, ci marraine yi Asmaaw di doomu Ababacar Saddiq bu ma tuddee ñenn ñi rek day yóbbaale ñi ci des nga xam ne tudduma leen kon guddi gi di amee fii ci cees ci promenade de Thiès waa di nekk nag le 21 décembre 2019 euh, promenade de Thiès nag moom ngeen miin ñu daan wax place de France fa la gàmmu gi di amee ah ñu di leen ko yëgal nag mbooleem fu doom aadama ne ci àdduna bi damay wax ne mayuñu kenn ngànt ñiñ ko tuddee bu fekkoon tey ñu ngi dund Abdoul Aziz danañu ñëw buñ mënta ñëw yebal délégation bu leen teewal ma jàpp nekkoon képp koo xam ne yaa ngi déglu waxtaan bi dégg ñi ma ko tuddee war nga mën a ñëw teewal leen boo dee jigéen nga teewal jigéen ñi su dee góor nga nga ñëw teewal góor ñi loolu moo tax rek ñu bëgg ñëpp bàyyi ko xel euh, yàgg nañ koo def nag ndax def nañ ko defati ko defati ko ren nag ñu fas yéene defati ko li tax ñu yóbbu ko ren décembre parce que dañ ko daan def mois de ay octobre la daan doon waaye ren ñu gis ne màggalu Tuuba euh, mu jege na gàmmu Tiwaawan sës ci njaasaan sës ci biir sës ci ñu ne nag xale day moytu mag loolu ay bisi mag la nañ bàyyi ba mag ñi pare su ko defee ñun nag ñu doo ko organise seen ginnaaw moo tax ñu yóbbu gàmmu gi ren jëlee ko octobre yóbbu ko décembre muy jëm ci le 21. gàmmu gi nag liñ ciy ñaan rek mooy bu leen jàpp comme ni ngeen miin ci gàmmu yi. mooy gàmmu vingt une heure déedéet euh, ñi koy déglu xam nañ li may wax gàmmu gi moom am na ñoo xam ne dañuy xëy yendu si jël place am na ñoo xam ne quatre heures ñu jël place am ñoo xam dañuy julli tàkkusaan jël place yor seen i sandwich ñi yor seen i ndox ñii fa la ñuy jullee timis parce que yàlla daan na dogal balaa vingt deux heures tànt bi feesteel parce que gàmmu la koo xam ne boo jàppee ne gàmmu vingt une heure la mën nga ñëw doo am place su ko defee nag dañuy ñaan ñëpp ñu teel a ñëw Euh, ci promenade bi lay doon teel a ñëw itam baax na ci ndax boo yéexee ñëw danañ bëgg teg la ci place mu tañu autorité itam ñu ñaan leen ñu teel a ñëw parce que da ngay toog ba nga xam ne gàmm gi ñu ngi ci biir gàmmu gi ñuy waxtaan ngi waxtaan ñëpp toog nañu ba ñu commencé nga jógee fële benn nga di ab sëriñ xuus ak sa mbooloo ñëw ñu bëgg a yëkkati ay nit jox leen jox la nga toog loolu itam du doon ci teggin du doon ci yiwte ñu tax ñu oote bis bi parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom moom bés bi ak ñi ñu tuddoon moom bu masaa ñëw ci mbooloo fa mbooloo ma yem fa lay toog xay sun taha majlisun kaanal juluusu lahu lam yajlisanna bi xayri dikri walam yaqumi yonent bi alayhi salaatu wasalaam su jubaan mbooloo fa mbooloo ma yem fa lay toog du xuus du jéggat suñ ko waxee mu ne su ma bëggoon a jege damay teel a ñëw waaye ginnaaw damaa tardé naa toog ci ginnaaw ndax kuy yare da ngay yaru su ëllëgee ku ñëw fekk bërëb bi fees nga mën a toog ci gannaaw xam ne yonent bi defoon na ko waaye su ma xuusee ku ñëw xuus yar boobu nag amatul léegi da ngay gis ñoo xam ni euh, dañ naan bu tànt bi feesee woo ma waaw am na ñoo xam ne loolu la ñuy wax ay nit niti bakken yooyu loolu la ñuy wax bu tànt bi feesee woo ma ma ñëw pare nga yollee ko mën ngaa ñëw nag wut sa protocole guddi gi benn patron la am ak ñi ñu ko booleel ñoom moom guddi gi ku ñoom boo ñëwee invité nga rek waaw invité nag ci bis bu mel nii dangaa war a góor góorlu sol col gu yiw bu dee jigéen bu dee jigéen nga solal col gu yiw du pour ñun pour yàlla la ak milieu bi li mu laaj bërëb bi waaw col gu yiw lañ fa bëgg ku fay ñëw itam di góor nga ñëw fa ñëwin bu yiw tax bañ a perturber bañ a dugal lu ci bokkul yooyu yëpp ñu moytu ñaan aussi euh, am na daaw lu nu daloon ci wetu mairie bi ñooñ nga xam dañ fa am seeni place daaw mujj nañ xaw am tuuti ak ñoom discussion parce que dañu ne ci gàmm gi ñuy teg ay musique dafa fecc di def yu kenn xamul te ñun dañu autoriser pour ñu def ko fa bu dul loolu julli lañ comme ñun xanaa nag lum bon bon war nga ne nga ne ma sédd bis bi lii lii ma daan def ci caaxaan ma bàyyi ko ormaale ko bis bi sagalee ko yonent bi sagalee ko ñu ñu tuddee bis bi waaw boo ko sagalewul sax sa mbokki Cees waa waaye da ngay dem ne man xaalis laay ut damay topp xaalis ba mujj nga lor ñu baa ñu lor la baa mu jur lorante daaw bu fekkoon kilifa yi defuñu intervention mën na jur ne parce que ka fa nekkoon dafa dëgër ci li mu dëgër ga ne woyi parce que dama fay sama xaay dama nangam nangam yooyu la ñu bëgg ñu éviter ko ñaan autorité yi ñoom itam loolu ñu jóg ci parce que guddi gi du guddi fitna guddi jàmm rek la ndax ki ñu ko tuddee mu yonent bi jàmm la xam ñu ñu ko tuddee jàmm la ñu xam bu ko defee loolu dañ koy teel a leeral teel leen avertir ñoom ña fa nekk ñoo xam ni guddi gi ci lañ bokk nit lu mu bokk du ko du ko yàq nit lu mu bokk du ca def lu koy yàq nit lu mu bokk du ca wax lu koy yàq waaw bàyyiwuñu kenn nag képp kuy kilifa ci réew mi ak koo mën a doon noo kilifa moo xam ci wàllu àdduna ngay yëngutu moo xam ci wàllu daara ngay yëngutu moo xam foo yëngutu rek ngay katolik ngay musulman amul murit amul xaadir amul laayeen amul tiijaan képp koy sénégalais ak fu nit mën a ne ci beneen réew woo nañ la ci guddi gi invité nañ ñëpp boo dégloo avant premier bi boo ko seetee bàyyiwuñu kenn murit yaa nga ca tijaan yaa nga ca jàngu bi sax mu ngi ci waaw at mi ñun noonu la ñuy doxalee parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu te jataayu xam-xam ku ne mën na cee bokk kon ñu ngi daal ñaan ñëpp di leen invité le 21 décembre 2019 fii ci promenade de Thiessois képp ko xam ne itam ñëw nga ñu ngi lay ñaan bul ñëw rek def acte de présence naan waaw man ni dafa amoon événement bu ma bëggoon a dem ma bëggoon ngeen yeewu ma déedéet li ñu bëgg mooy ku ñëw amal yéene fanaan amal yéene toog sagal yonent bi sagal ñii ma lim ne moom lañ ko tuddee raxuñu ci kenn parce que uutuñu ci alal suñu noon ut alal dañ naan ñu koy tuddee diw muy borom alal wala keneen ak keneen déedéet dafa am loo xam ne maam Alaaji Mansour moo ko waxoon euh, maam Alaaji Abdu daf ko noon fexeel ba sa jataay ku ñëw bu mu fa xàmmee ku am ak ku ñàkk ndax day dindi tuuma ci kilifa waaye kilifa goo xam ne sa jataay ku ñëw xam ne ñii ñooy kii borom alal la kii borom alal la kee moo yorul dara jataay boo ko fekk tuuma lay indil kilifa. moo tax gàmmu gi ku fa ñëw danga gis sa bopp. du gàmmu goo xam ne dañ naan ko gàmmu tiijaan la wala gàmmu murit la wala gàmmu xaadir la wala gàmmu laayan la wala gàmmu musulman yi la wala gàmmu chrétien la déedéet. gàmmoo waa Thiès la gàmmoo sénégalais yépp la gàmmu àdduna bi yépp la kenn ku ne am nga ci cër ku ne am nga ci cër nit nag lu mu am cër da koy jël li alquran naan wala tansa nasibaka mina dunya nit lu mu bokk da ci jël lay cëram kon invité nañ leen yéen ñëpp kàddu gi nag dama ko wax ci turu waa Thiès yépp wax ko ci turu comité d'organisation bi wax ci turu ñëpp di gërëm nag suñu jigéen bi nga xam ne bañ koo commencé léegi moo ñuy gunge muy soxna joor faal waaw yéen ñii xam ngeen ko joor bu gàmm gi jotee lu mu ci am ci matériel ci la ko jëme mosuma laaj benn fifteen ñu gërëm ko ci loolu gërëm waa koskaas ñoom ibrahima sàmb ñoom sëriñ baabu ñoom aziz ñoom mot jéen ñoom ñoom ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ne ci kanamu xale yi nga xam ne Pa du fay moo ñu booleek ñoom ak seeni baay ñoom Pape Souleymane ak mag ñi ñu àndal kon ñooñu daal organisation bi waa Tiwaawoon it danañ ñu jàpp ci euh, kii mooy coordinateur bi muy Pape Gueye ñoom Abdou Aziz ñoo yor animation bi ci guddi gi ñoom yoro ñoo yor organisation bi ci la ñu bokk yaatu nañu ñun dañoo ñëw rek teewalaale leen jigéen ñi ci la ñu bokk euh, gàmmu gi nag ni mu tëddee bu ñu commencé tànt la ñuy commencé togg ñu ñuy tànt togg lu ñu ñuy organiser dañuy togg pour doxandéem yi ñi amul fu ñu lekkee ak ñi nekk gan bu añ jotee ñëpp jàdd fa añ su reer jotee itam ñu ñëw reer su ndékki jotee ñu ñëw ndékki parce que ñetti équipe la ñu wut ñii ñoo yor añ yi ñii ñooy togg reer ñii yor ndékki dañ ko séddale équipe bu ne ak la mu gérer ñi togg añ buñ paree pare nañ ci ba subaati ñi yor reer ñooy dugg bu ñu paree pare nañ ci bu suba ñu yor ndékki ñëw bu subaa ñu yor añ noonu lañ ko organiser buñ commencé tànt ba bésu gàmmu gi ba dimanche day continuer bu dimanche nag bu matériel bi yëpp demee ñu ñaan yàlla fekkee fekkeeti déwén ti ko noonu noonu la doon tëddee te noonu lañ fas yéene mu tëddee bii des yàlla jàpp na ci yàlla def na lépp man defuma dara ñii defuñu dara sunu borom def na lépp Baye Amon Ndiaye dafa ma laaj léegi ne ma waaw fu ngeen toll ci gàmmu gi ma ne ko lépp baax na lépp féetee na boor mu ne ma waaw luy secret bi ma ne ko yàlla yàlla mooy secret bi parce que moom moom adduna bi te li dox moo koy doxal moom moom moom lépp ko defee tabaarakallaahu gàmm gi daal mu ngi noonu képp ku seetaan waxtaan bii jàppal ni Iran wax ji jox na la sa invitation bëgg naa it nga ñëw teew nga xam ma ma xam laa xamoo ma xaw ma la yépp ñii ñu tuddee bés bi daal su ma sañoon ngeen ñëw teew fekkee lañu ba ñu fanaan ak jàmm gàmm fu ko yàlla yemale rek ñu yemale ko foofa ñaan ba déwén ak jàmm kon loolu lañ doon joxe comme appel euh, gërëm nag say latir bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne def na ko jàppale ñu ko muy euh, Thiès Info di gërëm nag Mbaye Samb moom itam ñu ngi koy gërëm ci jàppale gi muy Thiès 24 franchement ci jàppale gi taxawu at mu jot noonu la ñuy def ànd ak ñun gunge ñu suñu gàmmoo pare ñoo koy partagé ba nit ñi mën ko jot yooyu yëpp ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm kon daal bàyyiwuñu benn autorité moo xam autorité religieuse la wala politique la wala koo mën a doon invité nañ la xalif généraux yi invité nañ leen parce que seen tour la ñuy def ci avant première parce que mun na am euh, carte yegg fa mun na am du fa yegg waaye nañu jàpp rek ñoom ne wax dëgg yàlla ñoom war nañ jàpp rek ne lu mën a xew gàmmu gi seen gàmmu seeni sët seeni doom ñoo ko organise waaw bu ko defee buñ sañoon ñoom buñ amul kàttanu ñëw itam ñu yebal ay délégation bu mag a mag a mag parce que xam ne seeni doom ñoo organise seeni njaboot ñoo organise loolu itam ñu ñaan xalif généraux yi ñaan ko këru diine yëpp ñaan ko itam sunu mbokk catholique yi ki yor jàngu bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di invité bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn eh, keroog eh, Madické Badiane daf ma ne Eh, dégg nañ nga boole ci xalifa Baye Fall waaye bu soobee yàlla danga xam ni ñun luñ ñu boole danañ ci ne léegi ma ne ko mais buñ leen ci boolewul nu ñuy def xanaa kay loo woo sëñ Touba loo woo sëñ Touba boo ci woon maam Cheikh Ibra sëñ Touba soxlawu ko loo jox maam Cheikh Ibra joxoo ko sëñ tubaa sëñ Touba du ko soxla Cheikh Ibra itam du ko soxla kon ñëpp ko bokk ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn kenn kenn kenn gàmmu gi nag noonu rek la tëddee du amul heure itam bu ñu ñëwee ba ñëpp toog rek ñu commencé liggéey bi waaw noonu lay tëddee at mu jot bu ñu ñëwee ba toog ñu commencé liggéey bi waxtaan ku ne am loo yóbbaale booy dem. parce que gàmmu noonu la nag. duñ fa ne ci pëccëxoo ne fa ji rëjëx rëjëx loolu du gàmmu gàmm moom dangay fexe ba ña fa ñëw jëlee fa xam-xam. waaw lu waaye xamuloon jéem ko faa xam ku daan def lu bon ñu waxtaan nga xam lii ma doon def baaxul nga bàyyi ko ku daan def lu baax déglu waxtaanu yokk sa lu baax la nga doon def loolu rek mooy jataayu xam-xam di Seydina Omar ne da nga fay sëfee lu baax sippee fa lu bon waaw ku daan def lu bon ba ko fa ku daan def lu baax yokk ko loolu rek mooy gàmmu su ko defee nag le 21 décembre la ñu ngi invité ñépp nag bàyyiwuñu kenn kenn kenn kenn ku ko dégg rek xamal ne gàmmu gi ci nga bokk sa teewaay farata la Iran invité ne la muy biir réew mi muy bitim réew seen xarit seen soppe ànd ak waa Thiès ñoo leen di invité le 21 décembre 2019 fii ci Thiès ci place bi ñu tuddee promenade de Thiès waa ñu koy wax place de France ku ñëw moom place moom fi mu nekk dafa jekk boo jogee dakaar dang ko romb boo jogee euh, xombal da nga ko romb boo jógee Touba da nga ko romb boo jógee Tiwaan da nga ko romb moom foo jaar romb place bi waaw bu ko defee ne ñu ngi ñaan ñëpp daal ñoo fekkee ko ba kenn manqué nag bàyyiwuñu sëriñ bàyyiwuñu taalibe bàyyiwuñu catholique ñu juif bàyyiwuñu musulman bàyyiwuñu kenn kuy nit rek kuy nit rek invité nañ la malaaka yi sax invité nañ leen ndax ñoo bokk borom yàllaa leen bind binduñu jinne yi invité nañ leen waaye bu ñuy ñëw nag nañ ñëw seen ñëwinu façon boo xam ne ñun duñu mën a indil problème parce que ñun mënuñoo gis jinne mënuñoo gis malaak waaw loolu mënuñu koo gis waaw parce que ay nit lañu fi ñu yàlla yem rek yemloo rek la ñuy yem waaye du tee nag ñu invité leen ñooy bu ñuy ñëw rek niñ jéem a mel ni ñun rek toogandoo du noonu toogandoo rek bu fi kenn malaaka buñ ko jinnee nañ ko nitee waaw ñun loolu la ñun mënuñoo gis yàlla mënuñoo gis jinne mënuñoo gis malaaka waaw ñun yooyu mënuñu koo ñun daal li ñu mën a gis mooy nit lañ mën a gis nit ñi lañ mën ci ñu gis ñu jinne yuy ñëw nag yoral melokaan nit gannaaw jibril bu daan ñëw ci yonent bi melokaan nit la daan yor muy dixyatul kël bii ñu ngi koy ñaan ñoom ñëpp nañu ñëw di bañ doon malaaka yor melokaan nit rek. jinne yor melokaan nit ñun mënuñoo gis jinne mënuñoo gis malaak mënuñoo gis yàlla wasalaam.